di ñaanal Abdou Lahad Guèye mi nga xam si ne moom la jàng alxuraan suñu borom dolli ko njëggal ak ak yërmaande di ko ñaanal ba waajuram wu tedd wax yëpp tawfeex ak taysir daal di xaar xanaa sant yàlla bu baax rek ndax jàmbaaram amut kun dimbali rek mu am waaw ndax ñi ko doon defandoo ñëpp rek maanaam gën mu ci mokkal kenn alxuraan gënu ma cee dàq bi ni kenn maanaam day tawfeex taw tawfeex suñ borom rek lu ma suñu borom tawfeexe la waaw waaye nag du tee nag ñoom ndax kontaan ak mbégte ndax lu mbooloo di xëccoo bu la ci yàlla joxee ndam sant yàlla rek maanaam da ciy war kon sant nañ ci yàlla bu wér yàlla ci ndam li nañ ci bu wér wér waaw ah loolu wax dëgg yàlla kon xawma ko ma daal nekk li ma war rek nekk war a nekk rek mu xëy nekk sama daara di jàng ko bind ak a jàngale waaw xanaa ñu gën a góorgóorlu bu baax rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax xam ne lii moom mën naa ne yomb na waaye yombut waaw yomb na yombut ndax liggéey la boo xam te ni moo ko alxuraan jafe na lool bind ko tamit jafe na lool waaw kon sama mbokk yi maa ngi leen encouragé di leen soññ ñu gën a góorgóorlu bu baax baax ci liggéey bi xam ni yoon yëngu ci benn xëy na bu banee suñu borom dañ leen jox ndam waaw man ba fi muy waxee suñ daar la damay jàngale daara laa di jàngale damay jàngale damay bind waaw. waaw xam naa daa mel ni damaa dégg rek ñu ni ah, ren ki at doo bokkaat waaw. ah. di am yéen a bokk ci yëpp rek incha allah taala soob bi ni'mati rabbika bi majnun